ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak santam ji jiital ci nuyoo bi sëñ Cheikh Saliou moom mi nga xamante ni moo woote liggéey bi jiital ci nuyoo bi noonu laa def sax sëñ Mountakha mi nga xamante ni mooy kilifa yoon gi yëpp di rafet lu teewaay bi bu baax a baax a baax a baax am mbégte nag ngir fekkee bésu santaane bi nga xamante ni Sénégal gi yëpp dégg nañ ko Sénégal gi yëpp aussi wuyu si nañ ndax nekkul guléet at mu jot ñu ngi ko fi woote bu nawet bi agsee fii ah ñu am mbégte nag ñun ñi nga xamante ni maanaam xel comme dafa aju ci ñun te ñu faral di ko def bu ñu wootee rek ñu ñëw teew fi waaye teew fi tam suñuy kilifa ndax liggéey bi ni mu amee sole gouvernement xam na ko ba nga xam ni alors ñun ñuy ndawam dañuy faral di ñëw di fekkee liggéey bi saafonte ak kilifa yi waaye nag ni nga ko waxee léegi rek euh, honorable di encourager ñi nga xamante ni ñoo daje ci liggéey bi ndax ni nga ko waxee liggéey bi am na solo te dafa méngoog li nga xamante ni moom la gouvernement président bi nga xamante ni moo jiite réew mi alors namm ci Sénégal gi jëm ci euh, souveraineté alimentaire nga xamante ni lu toll nii euh, plus de mille hectares ñu bay ko ci dugub ci benn daara kase boo xoolee yeneen daara yi ku ci nekk nga def lu mel nii boo xoolee ay tonnes yi tonnes yi tonnes yi tonnes yi dugub la loolu boo xoolee ni mu toll bu ñu ko amee euh, lu nu mel ci gox yi mel ni Sénégal gi yëpp dana doon lu am am solo ba tax na euh, mënuñu ñàkk ñëw ngir fekkee liggéey bi ni ma ko waxee léegi encouragé leen euh, jottali leen tam nuyoo suñuy kilifa préfet Malem Odar gouverneur région Kaffrine ministre de l'intérieur ba ci président de la République ndax euh, liñ fiy def moom ñëpp xam nañ ko Sénégal yëpp xam nañ ko waaye nag teew fi ñu gis ñu ñu jottali ji kàddu nuyoo carte sant tam daf ci daf ci daf ci baax moo taxoon ñëw fi ànd ak capitaine compagnie gendarmerie bu Malem Odar ak euh, ki nga xamante ni mooy délégation spéciale bu xel xelkom bi pour jotali leen kaddu gi kaddu vraiment sant la encouragement waaye da wane ni gis neen liggéey bu am solo bi ñu fiy def waaye surtout rafetlu kàddu gi nga xamante ni sëñ Moustapha Lakram jàllale na ko jëm ci euh, euh, soññiwaat ñaaxaat alors euh, poussé waat jeunes yi nga xamante ñoo fi ëpp te di fi daje ci ñu gën a euh, fonk seen i waajur gën a taqoo ak liggéey gën a taqoo ak jaamu yàlla loolu yaakaar naa ni loolu kase rek message boo xamante ni bu bu am am solo boo xamante ni ndaw ñëpp war nañ ko mën a dégg te loolu moom la sëñ Moustapha Lakram wax ñu koy ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax.